Tuubaa ngi woote bésum màggal ga waaju ko na waaj te ñëw ndax sëriñ Tuubaa ku ci gan góor gi géen naga kii ndaw ñépp nag lan woo màggal si leen màggal Tuubaa ga ñépp a ko ñun nag boo gisee nii leen koy waajale yàlla dogal na benn fan safar gi tey andoon ko si jumaa ji tax ñu indi ko mooy si ndigal waaye nag ñun safar gi moom bu tàmbali dañ koy tàmbali rek ba keroog safar gi jeex du caagin nag lii kat si ni yem bépp xeet boo xam daal ay xéwal la ñun ñu ngi koy waajal di ko préparer màggalu suñ bamba gi ndax am murit dafa amul dara lu dul bisub sëriñ Tuubaa bii ndax sëriñ Tuubaa de tukki na géej dem ba ñëw mu ta woote fenn ndimbal furut si bisam bii mu ne ñëw leen ngeen santale ma ndax cant gi mu bëgg a cant suñu borom loolu xaw na seen lottu mu ne nag kon fépp ku am murit nekk li ko dalee ganaar ba gileem bulu xeeb bulu yéem waaye lu fi waay man boo ko defee daal ren jii bu déwénee da nga gisaat leen lu ëpp loola fuuf fuuf fuuf fuuf si yow waaw ren nag ñun ñu ngi koy programme bu baax a baax a baax a baax a baax daal uh, wut nañ suñu nag yi bari wuti ay xar wutit lépp loo xam ne daal bis bi yelloo na ko ñu ngi koy waajal bis bi di même gan ñi sax dañ leen yónnee paas ngir bëgg ñu màggal si waaw yónnee leen paas dañ leen yónnee paas sax ñun ngir bëgg ñoom ñëw si bis bu sëñ Bàmba bi